salaamaaleykum waa Sénégal tey nag seen doom maam Gor Diazaka moo ñëwoon pour waxtaan ak yéen ci benn phénomène boo xam ni dañu seetlu ni léegi dafa xew Sénégal mooy tey léegi ay nit yu bëri yoo xam ni euh, bala ñuy euh, wane ni ci dëkk bii lañ bokk rek dañuy bàyyi ba am doom ba tànk door ko nangu nii ci dëkk bii lañ bokk. léegi nag exemple bi nga xam ni tey jii moom laa ci mën a joxe mooy euh, exemple le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall parce que man bi ma juddoo ba léegi. Tëngéej laa juddoo fa laa yoroo ba am 45 ans mosuma woon xam ni moom c'est un Rufisquois donc nag politiquement kenn terewu ko ah, mu identifié wu nii ci dëkk bi laa bokk wala ci gox bi laa bokk mais nag boo demee ba nga xam ni da nga war a ñëw ci benn dëkk pour ni yow dëkk boobu fa nga bokk mooy ña dëkk ca dëkk ba danga leen di wekk fonk leen fekk leen fonk leen mooy tey jii Tëngéej dafa am ay talent maa ngi yëg rek ni bërki démb y avait euh, benn arbre de bu fa am mais y a pas un boo xam ni boole na ñeenti mu nekk nag loo xam ne dama koy regretter rafetlu ma ko te politiquement Tëngéej dëkk bu mag la am na ay doomu Tëngéej yu fa yàgg nekk di fa def ay teranga ku mel ni Moundiaye Cissé ku mel ni Seydou Diouf koo xam ni ñu bëri ñoo xam ni dañuy jàppale président Macky Sall donc nag politiquement bu bëggee nit ñi jàppale ko Aar Rufisque wala mu bëgg am dara waa Aar Rufisque dafa war a associé doomu Tëngéej yëpp ci li nga xam ne moom lay def parce que ñun Tëngéej rek lañ bëgg mu salaam